salaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Senego TV tey ñu ngi dalal euh, Abou Seck muy maire bu Bargny euh, nekk aussi tête de liste majoritaire Benno Bokk Yaakaar bu Bargny monsieur le maire ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Khalil di la gërëm ci invitation bi di nuyu it ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan Senego TV di rafet lu lool it seen émission dama koy des fois di seetaan su ma amee jot. mais maa ngi leen di féliciter en tout cas di leen encourager. ok euh, jamono ñu weesu ñu ngi assisté wu venu euh, Cheikh Mahi Ibrahima ñas muy xalifa euh, Medina baay donc ñëw na fi def i une visite de quelques jours donc aussi euh, recevoir na ay ki ay kilifa bon ay politiciens en fait muy politi opposition bi comme muy pouvoir bi donc si diggante bi aussi il a lancé un message de paix donc ban jàngat nga def ci ñëwam boobu noonu. effectivement dama koy saluer tout simplement parce que démocratie dafa bari ay pilier on va dire euh, Sénégal démocratie dafa am nu muy doxe am ay kilifa yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne nii muy ci tijaan yi di ci murit yi di ci bépp tarixa ñoo xam ne nii yàgg nañ di leen gis ñuy woote au calme euh, veille moom day bëri bouillonnement day bëri jàppal fii génneel fii et naturellement les religieux ñu ngi seen rôle que de jaboot yëpp quel que soit tarixa bi à un peu plus de sérénité ñu bañ a fàtte ni li ñu bokk Sénégal moo ëpp vraiment li nga xam ne moo ñuy diviser politique ay prise de position la à un moment donné mais réew mi moo gën a fort lépp looy gis donc bien évidemment appel la boo xam ne dañ koy saluer et puis di espérer aussi que ni euh, tous les leaders que nous sommes bien évidemment dinañu jéem a Euh, nourrir en tout cas euh, dégg appel boobu et puis doxe ko pour le bien de tous les Sénégalais. ok parce que on a remarqué que ni juste ci biir semaine boobu mu def appel euh, message boobu noonu donc euh, dimanche kii def na. waa Yewwi Askan Wi def nañu un meeting d'investiture de leur candidat donc ci loolu aussi gis nañu peut-être y les leaders dont Barth ak ñeneen yi ak Ousmane Sonko au fait seen message soo xoolee euh, que ni ñoom ku leen dóor ñu fayu donc même charte de non violence bi il est dit qu'il n'est qu'il n'est pas prêt à signer donc ban xalaat nga ci am yow. loolu mënu ma ko rafetlu parce que tout simplement euh, dëkk bi comme ni ma waxee ñoo ko bokk. Mhm. mënuma comprendre un leader politique ba nga xam ne nii da nga bëgg ay responsabilité ci dëkk bi bëggal sénégalais yi jàmm quiétude sécurité ba noppi ne yow doo woote jàmm loolu mosuma ko gis fenn donc non duma ko rafetlu du tout dama koy ñaawlu et puis di leen wax ne nañu delloo ci seen xel yi Sénégal moo ñu gën a fort ñun ñëpp ce pays quel que soit alpha depuis mu indépendant mi ngi dox di am ay jalons des fois mu am ay soubresauts mais ce pays restera toujours debout et son sa démocratie dina gën di dem kanam donc je les appelle tout simplement à revenir à de meilleurs sentiments. ok mais yéen est-ce que à votre niveau en euh, euh, wu signé charte de non violence boobu. yow laa dégg da nga ne ñi ne duñ ko signé mooy yeewi askan wi dégg ko Benno Bokk Yaakaar wax la ne duñ ko signé wala non ñun jàmm la ñuy woote depuis toujours donc déggoo vraiment kenn ci Benno Bokk Yaakaar wax loo xam ne nii ça va à l'encontre de li nga xam ne moom la marabuy di woote. Donc euh, nous sommes pour la démocratie, la non-violence et puis dans la sérénité qu'on exerce nos droits. Okay. Donc on leur demande tout simplement à revenir dans de meilleurs sentiments. Euh, mais ces, ces jours aussi on a remarqué une forte mobilisation de Yewwi Askan Wi donc aussi ak élection yi ñuy jublu donc ak leader yi regroupé au niveau de Yewwi Askan Wi est-ce que ça ne vous pas un peu peur par rapport ak euh, élection locale yi ñuy jublu surtout fii à Dakar Non du tout peur quoi pourquoi non du tout ça nous fait absolument pas peur parce que nous savons que Dakar waay comme Sénégalais yëpp ñun ñoo nekk dans l'écrasante majorité des communes c'est pas par hasard c'est parce que dafa am lu ñu wax ak njaboot yi askan wi ay programme ñu leen proposé ñu nangu teg dans l'écrasante majorité des communes waa Benno Bokk Yaakaar le bilan du président associé ak li maire yi def ci seen ay dëkk est largement positif awma benn inquiétude que nii les Sénégalais daañu renouveler leur confiance suñu camarades yi ñu ngi ci sur le terrain politique. mais aussi tous les jours. Uh-huh. mais mais soo soo soo seetloo ñu ñu bëri ñi leen rejoindre aussi ils étaient dans le opposition donc euh, bokkoon aussi si lis xalifa Sall bi taxoon ñu gagné. waaw mais boo xoolee ñoom ñu ngay wax sax bëri nañu ay dëkk yoo xam ne dañoo tasaaroo. Hmm. yow yi ñi jaar fii ñi jaar fii gis nañu seen péripéties yi ñoom ñii gedd fii euh, ñiy gelé seen activité dans les commissions d' investiture avant que ñu def ay arrangements yoo xam ne nii. euh, peut-être c'est certainement pas dans l'intérêt des Sénégalais. Donc nous, nous sommes confiants. Nous avons beaucoup de maire sortants ñu def liggéey bu rafet ñu ngi ci terrain bi pour xamal askan wi suñu ay bilan et il y a aucune raison non aucune espèce d'inquiétude on est en démocratie ils ont fait leur meeting d'investiture bien sûr et nous notre candidat on a vu la mobilisation bi mu def Abdoulaye Diouf Sarr récemment et ça euh, du dara du waxtaan bu ndaw la mais di nga gis ci kanam que ne effectivement moom it euh, bés bu wootee fii foo naa Dakar waaye yëpp daañu gën a ko parce que koo xam ne doomu Dakar la nit ñi sopp nañu ko gis nañu li mu def ci Covid donc il y a aucune raison que euh, muy am lu muy tiit. ok parce qu'on parle de local mais soo xoolee li si ëpp Dakar moo ëpp enjeu si élection yi donc surtout face à un adversaire comme Barthélémy Diaz aussi. ah mais face il euh, y a pas que Sénégal mm-hmm. a pas il y a plus de une commune si je ne me mais foofu yëpp ay doomu Sénégal ñoo fa dëkk foofu yëpp tout comme Dakar les communes sont d'égale dignité man dëkkuma Dakar maa ngi beneen commune dans le département de Rufisque donc euh, non gisewu ma ni Dakar euh, non oui c'est la capitale oui il y a un enjeu euh, autre certainement mais euh, moi je le redis nous avons confiance en notre candidat Abdoulaye Diouf Sarr doomu Dakar la def na liggéey ci Yoff def na liggéey ci poste ministériel bi ñu ko dénk alors man dama gëm ni euh, du moroom Barthélémy Dias loolu amul sa discussion. donc ñu ñëw un ci sa localité ak ak alentour yi fait parce que boobu ba léegi on a vu que surtout avec euh, l'autoroute à péage ak euh, l'avènement de Diamniadio donc on a remarqué que ni Rufisque ak euh, Bargny presque mun nañ ne euh, autoroute à péage xaw na ko rey au fait économiquement parce que yu si ëpp soo xoolee oto yi foofu lañ doon jaar. gis euh, y avait des vendeurs yi fa doon toog ak yooyu mais euh, depuis autoroute à bi amee ba léegi ñi si ëpp foofu si péage bi la ñuy jaar donc économiquement est-ce que impacté wul aussi ci seen euh, dundin foofu. ah ça impacté mais trop positivement moi je pense que euh, pour qui connaît la matière autoroute bi dafa changer la structure des déplacements ñu am un report euh, depuis la nationale vers l'autoroute à péage. l'autoroute à péage am na ay sorti deux sorti à Bargny évidemment donc loolu impact bu positif la indi parce que li gënoon na tee ñun suñu territoire yi attractif maanaam nit ñi ak entreprise yi sax war a génne Dakar ñëw mais mooy que ni boo bëggee jóge Dakar avec la nationale mais ñun ñëpp ñu ngi am ay souvenirs mën nga def deux ans de pardon de deux heures ci yoon bi voir plus trois heures voire des fois une matinée mais nan nga bëgg entreprise ñëw ci sa dëkk bu fekkee ne pour jóge Dakar ñëw ci sa dëkk il doit mettre trois heures mm-hmm. enquête yu ñu def yëpp banque mondiale ak toutes les instituts sur mm-hmm. lan mooy les critères d'attractivité maanaam bëkk lan mooy tax nit ñi cawar sawar ci di ci dem mm-hmm. accessibilité moo jëkk ci lépp accessibilité. Mhm. moo jëkk ci lépp après mhm. am na yeneen critères yu mhm. ñëw. présence des services notamment télécom et autres mais accessibilité. moo jëkk sur toutes les enquêtes. avant jóge Dakar ñëw Bargny Tëngéej il faut nga def deux heures trois heures. maintenant pour ñëw il faut nga def ko quoi trente minutes quarante cinq minutes. eh bien va de soi que nii bu ñu jëlee critère boobu mooy que ne on est devenu plus attractif moo tax ma ne la li nga wax c'est le contraire tout simplement. ça c'est un premier élément. Mhm. le deuxième élément le résultat ça donne quoi avant l'autoroute ñun suñu ay territoire il y avait euh, très peu euh, d'entreprises qui venaient s'installer mais depuis autoroute bi mais alors là tous les jours on a des demandes nous depuis que ñu nekk Bargny 2014 mhm. autoroute bi à peu près 2012 13 euh, la ñu ko ubbi depuis ñu nekk 2014 mais alors là li ñu am ci ay demandes li ñu installé ci ay entreprise mais alors là kenn xamul lu mu lépp ci biir Bargny bi quoi. ah oui carrément beneen bi mooy pôle urbain bi ngeen di wax nit yi dañuy jaawale périmètre de projet de ville nouvelle ak limite administrative de commune ça les gens ils ont tendance à confondre boo demee dans d'autres pays il y a des villes nouvelles mais qui sont sur six onze jusqu'à 33 communes en France di nga ko gis périmètre de projet de la ville nouvelle di di de Diamniadio et en réalité ci ñaari commune essentiellement Bargny ak Sangalkam Diamniadio li mu ci am matul vingt pour cent loolu du lu ma inventé c'est juste sur les décrets yi nga xam ni ñoom ñu organiser limite commune yi donc oui l'autoroute positivement lu ñu impacté parce que premier critère pour que commune attractive attractive pardon mooy accessibilité et gis nañu résultat bi beneen bi mooy li pôle urbain indi it une partie nekk ci Bargny une partie nekk ci euh, Sangalkam véritablement est en train de révolutionner tout simplement. Non, mais économiquement con, euh, concernant un peu les populations fait mooy ñi doon jaaykat yi doon taxaw ci kaw tali yooyu naka la impacté seen dund. mais jaaykat yi doon taxaw foofu ñu ngi fa ba léegi. Mm-hmm. jaaykat yi fa doon nekk ñu ngi fa ba léegi parce que y un report. de euh, un changement dans la structure des déplacements ñenn ñu jógee national den autoroute mais boo xoolee autoroute li fay ëpp c'est plus ou moins d'ailleurs des véhicules particuliers mais les flux national bi ba léegi mi ngi am ay flux ba léegi mi ngi dans am ay flux mais beneen impact bi comme ni nga doon waxee certainement bu fekkee ni ñiy jaay ci tali bi à Bargny ils sont à peu près quatre-vingts ah def nañu recensement bi mais entreprise yi nekk foofu di di di toog dañuy dugal mairie yi dañuy jël ay doomu Bargny dañuy changer image yu dëkk bi e loolu bokkul comme euh, tout simplement euh, euh, euh impact. c'est okay. très clair que c'est impact ça nous impacte positivement. donc mais par rapport ak yeneen entreprises yi fa njëkkoon nekk aussi dans Sococim ak yooyu donc naka la impacté aussi si seen surtout par rapport ak mairie Bargny beeg yooyu. bon su si amul impact par rapport a l'autoroute peut-être xëy na ñoom it daañu am un impact mais ça c'est à la Sococim de le dire euh, man li ma xam mooy ñun bi ñuy ñëw euh, ci mairie Bargny par exemple la SEL contribution économique locale moom moo doon patante la SEL euh, bi ñuy ñëw 15 millions année 2014 moom moo dugg ci paiement patente tey jii patente dañ ko refaire mu doon la SEL contribution économique locale année bi ñu nekk nii rek plus de trois cent millions dugg na quinze millions ba trois cent millions et quelques li ci ëpp jóge ci Sococim muy deux cent cinquante millions mu doon nag lu bees Sococim ñu ngi fa depuis dix neuf cent quarante huit dërëm musul dugg comme patente ci Bargny eh bien ren ji la am loolu mënuma ko wax te duma gërëm le président de la République parce que moom moo jël cette décision gërëm ci it le DG de la Sococim moom mi nga xam ne nii depuis le début il est convaincu que affaire bi noonu la waroon demee ñu ngi kon ne waxtaan bi nag parce que yemul foofu ça doit évoluer positivement donc pour que tout simplement ñu mën a am la capacité de porter le développement de nos euh, okay. de de nos territoires. donc aussi on parle euh, souvent de l'érosion côtière ci seen localité bi au fait donc euh, gis euh, nañ population yu bëri souvent dañ leen déplacer à cause de l'avancée un peu de la mer donc ban politique nga lal pour euh, par rapport à ça. alors problème érosion côtière ça touche les côtes sénégalaises et suñu côtes yi malheureusement bokk na ci yi gën a vulnérable bien sur euh, ville cotière il subit les impacts effectivement de cette érosion côtière alors ñun bi ñu ñëwee dañoo jël le problème à bras le corps mm-hmm. avec différentes orientations la première chose c'est que il faut ñi nga xam ne géej gi ñu ngi lekk seen kër tey boo fa demee mm-hmm. da ngay gis ay moitié kër la moitié est partie et il reste l'autre moitié et dans des situations yi nga xam ne yàlla rek moo xam ñun ñu jël suñu initiative pour engager li ñuy wooy le PROVEC programme de relogement des victimes de la région côtière mm-hmm. programme boobu ñaari phase la mm-hmm. la première phase mm-hmm. c'est construire cent quatorze logements jox ko gratuitement population yi nga xam ne géej lekk na seen kër les travaux sont en cours incha allah fin décembre les médecins témoins daañu ko réceptionner c'est un vaste chantier boo demee bien di nga ko gis beneen bi mooy oui yëkkati ñooñu yóbbu leen gratuitement mhm. c'est une chose mhm. mais après géej gi avancé il faut it ñu am lu ñu ci jéem pour atténuer ko mhm. foofu ñu ngi liggéey avec la DEC direction de l'environnement et des établissements classés avec beaucoup parce que ñu ngi ci piste yu bëri pour jéem a am des solutions soit une digue pour fixer le trait cote et éviter que donc l'avancement en tout cas atténuer l'avancement ça c'est une chose beneen biit mooy par rapport ak Bargny Géej c'est la zone bi nekk a côté de la mer. Mhm. au-delà de ñaari projet yooyu. Mhm. benn bi financé dans le cadre de la première phase le PROVEC construction dans cent quatorze logements deuxième phase bi on y travaille pour mën ko boucler le financement. Mhm. am na de manière globale aussi un projet de restructuration de Bargny Guedj. c'est un quartier un peu irrégulier. donc euh, voilà boo xam ne lotissement bi des na demee noonu. ñu ngi ciy liggéey dans le des fonds verts là aussi avec la DEC. et euh, d'autres partenaires. et bien évidemment c'est des projets très longs mhm. mais ñu jàpp ni ci côté Bargny Géej trois projets majeurs moo fa am mhm. un le relogement mhm. c'est en cours deux on est en recherche de financement pour def une digue et puis enfin à la recherche de financement également pour restructuration de Bargny Géej et je pense que ces trois projets dinañu permettre ñu régler définitivement le problème de la région côtière et aussi de Bargny Géej qui est un quartier okay. euh, des quartiers Euh, irrégulier. ok tout à l'heure yaa ngi koy wax c' est des projets un peu longs aussi euh, est ce que aussi c' pas de la poudre aux par rapport ak élection yi ñu parce que soo seetloo euh, maire yu bëri on les reproche le fait que ni dañuy bàyyi ba élection di waaye jublu ñu commencé def yenn réalisation yi pour gars yi mun leen voter ak yooyu donc je donne aussi l' exemple du TER qui a été inauguré depuis 2019 jusqu'à présent chaque année ñu andi ñu ñu reporter un peu démarrage bi donc. ça c' est des Euh, ñun boo demee di nga gis le chantier bi ma lay wax. Mhm. je vous ai parlé li nga xam ne moo nekk en cours la construction des logements. Mhm. mais d'autre part moo wax la li nga xam ne nii ci la ñuy liggéey. sotteegul ñu ngi ci liggéey depuis 2014 mais un projet de projet de restructuration de Bargny Géej plus de vingt mille personnes c'est onze milliards minimum. Mhm. c'est sûr que c'est des projets très lourds. yoo xam ne du régler ci benn bés. mais de manière claire. Je vous invite à Bargny, comme ça, je vous ferai visiter. Vous verrez un chantier où il des logements qui poussent. Donc vous un peu de, relogement des populations, mais aussi par rapport à avancée géej gi ban euh, solution ngeen si mooy la solution digue bi moo. digue bi ok la digue permettrait d'atténuer l'avancée de la mer. Mm -hmm. ça c'est une chose et puis yëkkati ñi nga xam ne quasiment alors seen kër yi dem na à moitié. Mhm. et puis bu ñu leen yëkkatee euh, on on va reconquérir cet espace parce que bu ñu mhm. demee ça libère de l'espace. Mhm. plus bés bu ñu financement amee. pour ñu arrêter le trait de côte bien évidemment day doon beneen dëkkuwaay lay doon Okay. Donc, euh, mais moi, je vous invite, comme ça, bon, on va visiter les, les chantiers. Problème, ce sera avec plaisir. Donc, voilà, nous avons un peu par rapport à mairie. On va aussi parler de l'actualité. Donc, concernant un peu le phénomène de Miss Sénégal, bon, qu'elle a été violée, un une autre Miss aussi est sortie pour dire que amna ay kilifa peut-être un ministre même bu bu ko enceinté aussi donc euh, par rapport ak phénomène boobu yëpp euh, di lëmbe dëkk bi ban analyse nga si mën a def alors maa ngi liir comme tout le monde alors le, le problème c'est que euh, lan moo ciy dëgg ak lu ci dul dëgg parce que y a beaucoup de choses yoo xam ne ñu ngi koy wax lan moo ciy dëgg lu ci dul dëgg moo j'ai pas pour habitude de m'aventurer ci loo xam ne vraiment voilà li ma ci mën a wax mooy euh, jigéen dafa sacré bien évidemment euh, bërki démbo Ndiaye c'était donc la journée bi nga xam ne moom la ñu jagleel pour xeex li nga xam ne mooy violence faite aux femmes viole son excellence le président Macky Sall wax ne voté nañu Sénégal criminalisé ko. Mm. donc gis nañu vraiment euh, toute la politique pénale bi nga xam ne gouvernement mu ngi koy def pour lutter contre le phénomène. Mm-hmm. à partir de là nag euh, bu fekkee vraiment loolu am na il faut ñu gën a inciter les femmes plus d'écoute et qu'on arrête quand même des fois di leen tirer facilement mm-hmm. pour ñu wax parce que yombul mm-hmm. partout dans le monde d'ailleurs c'est pas qu'ici tous les jours des fois ñu gis les paroles se libèrent da ngay gis benn dëkk benn phénomène am alors là jigéen ñu bëri profité di wax. Mhm. donc il faut mooy wax ubbi bu bi pour ñëpp donc ñun il faut ñu leen di dooleel. Mhm. ku ci wax ñu dëkk déglu la jox la écoute dooleel leen pour que loolu jeex parce que jaaduwul dëgg-dëgg vingt et unième siècle ñuy gis des pratiques comme ça Sénégal tollu na fa nga xam ne loolu ñun ñëpp dañu war a participer di ko xeex. Mhm. donc man li ci xalaat mooy. nañu gën a prêter attention victime yooyu ku ci génne ba wax des fois da ngay gis les gens sont très très méchants par rapport à ces femmes là c'est pas mhm. normal mhm. nañu déglu nit yi mhm. bu ñu leen dégloo am nañu ay kuréel yoo xam ne seen liggéey mooy leeral loolu mooy tax ñu mën a combattre ñun ñëpp cette euh, ce phénomène même autosaisir par rapport ak affaire boobu bien évidemment les, les la justice y une séparation des pouvoirs du ma dugg sur le pouvoir judiciaire mais li ma xam mooy on a une justice responsable qui sait prendre ses responsabilités. Mhm. Euh, les événements sont en cours. ok donc euh, ñu fàttali yaa ngi ci boppu mairie Bargny depuis mille 2014 donc depuis bi nga fa nekkee ba léegi euh, mën nga ñëw un peu si réalisation yi nga jot def ci mairie bi. oui mën naa la lu bëri lu bëri mais xam naa ne du xëj ci benn wala ñaar wala ñett émission buñ ci jëlee domaine bon éducation ñun suñu priorité économie suñu priorité le sport culture et par exemple dans dans le domaine de l'éducation def nañu quand même euh, bu ñu yegsee la ñu engagé ay assises de l'éducation pour contextualiser les solutions nationales dëkk bu nekk ak ay particularités yi mu am ça avait permis ñu dégager au moins ñetti axe bi ci njëkk mooy euh, le bâti ñu réabilité ko beneen bi mooy l' accompagnement social beneen bi mooy l' accompagnement pédagogique su ma jëlee accompagnement euh, social maanaam les fournitures scolaires on le fait depuis ñu ñëw joxe nañ ko bu yàggul c' était pour un montant avoisinant les quatorze millions donc les plus de sept mille apprenants am nañu ay fournitures loolu avant ñu ñëw amu fa woon donc loo xam ne lu bees la sur la promotion de l' excellence euh, ren defar nañu la journée de l' excellence cent cinquante et quelques ont été primés dont les meilleurs avec des ordinateurs mhm. su ma jëlee aussi les bourses scolaires parce que am na ñoo xam ne ni seen parents yi euh, mhm. ñu leen jàppale ñu kon ni seen njàng mhm. du ne dañoo xamul dara wala déet mais des fois ay gàllankoor day am ba nit ki du mën a avancer jàngam alors deux mille quinze ñu ngi jëloon euh, trente neuf quarante quelque chose comme ça ay apprenants di leen fayal pour un montant de trois millions et quelques mais daaw jël nañu plus de 221 à peu près, pour un montant de de 300. Et on, va, on a prévu dans notre budget plus de 30 millions. loolu c'est sur l'aspect social mënoon naa continuer li am. su ma jëlee sur le bâti ñun bi ñuy ñëw y avait 136 salles de classe. ok aujourd'hui il y a 177 salles de classe 41 salles nouvelles salles nouvelles yooyu euh, d'une part c'est le fruit du budget la mairie. Mhm. ñu ngi yeggali 5 salles de classe des filles ñu ngi defar. salle de classe à l'école ñu ngi defar de classe à l'école Ndiolmane mhm. mais aussi il y a des mhm. ñoo ñu accompagner sur l'ECM mhm. il y a aussi l'État c'est c'est la somme combinée moom moo joxe quarante une salles de classe okay. nouvelles plus quarante sept salles réhabilitées également loolu c'est sur budget de la mairie construire plus de d'une vingtaine de donc pour que l'école soit un endroit agréable où suñu ay doom bu ñu fa demee dañu am envie jàng. Mhm. mais aussi par rapport à bi aussi. mais la pollution toute activité humaine génère une pollution. Mhm. à Dakar c'est beaucoup plus pollué. Mhm. Euh, ñun euh, sur la pollution on a mis en place sur le plan environnemental on l'a abordé un peu avec les régions côtières mais de manière globale dañu créer benn maison de l'environnement et développement durable ñaari nit di ko doxal ak benn brigade vert ba nga xam ne nii cinq personnes ñoom ñoo fa nekk. et damay faral di wax ni ñoom seen liggéey mooy càmbar. xam nga pollution ñu bëri dañ ciy wax mais yow su ma laajoon yan polluant ñoo am fii doom bu mën a wax ñi ko xam bëriwul. mais il faut ñu man a xam les polluants qui sont rejetés. d'une part il faut ñu mën a éduquer les enfants éducation environnementale les changements climatiques. il faut ñu démarrer très tôt pour jàngal ko xale yi. ñu changer ay habitudes on parle d'architecture bio bioclimatique. on parle d'isolation on parle il y a yoo xam ne il faut ñu tàggat ci xale yi dès le début mais aussi suñu ambition majeure aussi mooy ñu am ay outils de mesure ñun ñu mën a mesurer la pollution effectivement de l'air nous en avons hein, bien sûr. la su possible est là même les, les la su possible la la la la RSE d'une part RSE c'est pas tout à fait euh, euh, euh lié à ça. Mm -hmm. mais on a la Sococim qui génère de la pollution. Mm -hmm. qui fait euh, des techniques d'extraction du calcaire par des mines. Mm -hmm. donc euh, je crois savoir que ñu ngi def ay tests. pour extraire le calcaire mhm. avec euh, d'autres techniques yoo xam ne du ay mine mhm. ñu ngi koy encourager bu baax di encourager tout ce qui est utilisation de filtres modernes okay. aussi bien pour la centrale que la Sococim et pour mhm. toutes les autres activités nous ce qu'on veut mooy vraiment am cette maison mu am doole ba mën di interpeller di informer di natt loolu moo ñu mën a permettre ñu jëm kanam une vraie connaissance du phénomène. ok donc yow yaay tête de benn majoritaire benn bokk yaakaar à Bargny aussi donc euh, ban programme nga mën a andi la euh, population yi pour élection yi ñu jublu nii. programme bi ba euh, bëri na mais su mën naa ci jukku jukki ñett wala ñeent. Mhm. bi ci njëkk mooy ñu continuer deuxième phase du programme de relogement. Mhm. ñu ngi ci première phase cent quatorze logements. Mhm. ñu yeggali ko beneen bi mooy dig bi wax naa ko. beneen bi mooy restructuration et de Bargny Géej et de Kip mmh. deux yoo xam ne nii ñu ngi ak la direction de l'environnement et des aménagements classés mmh. dans le cadre du fonds vert des processus longs mhm. donc ça c'est déjà beaucoup de projets très importants mhm. l'autre projet mooy euh, sur le stade ñu ngi koy def gazon mhm. synthétique pour la jeunesse mais loolu c'est une étape après il y a une autre étape ba nga xam ne nii dama teg benn comité ad hoc. Mhm. ñoom la bàyyi ñu réfléchir ci bu ñu paree ci gazon bi lan lañ ci yokk parce que mhm. on a un stade bien placé une assiette foncière ñii ne nañ centre d'hébergement ñii ne nañ piscine. Mhm. voilà mais j'ai voulu une démarche inclusive donc la poursuite de la modernisation des infrastructures sportives. le pôle de pêche aussi. enfin depuis euh, que Bargny existait. dañu doon ñaan pour am quai de pêche. ñu ngi koy doog a am 2019 depuis et pourtant am nañu ay ay pêcheurs yu jàmbaar am nañu un parc piroguier am nañu xam-xam mhm. mais amuñu woon les infrastructures mhm. foofu quai bi am na mais nous attendons un complexe frigorifique ñu ngi koy mhm. xaar marché aux poissons pour def foofu le premier pôle de pêche de la région de Dakar loolu c'est aussi notre ambition dans le domaine économique on pourrait aussi prendre dans le domaine de l'éducation nous voulons complètement réhabiliter le bâti tout mhm. le bâti tout mhm. j'ai dit que réhabilité nañ 47 salles sur un stock de 136 rythme boobu bu ñu ko téyee mhm. eh avant la fin des cinq autres années incha allah bu waa Bargny renouveler leur confiance dinañu mën a réhabiliter quasiment euh, quatre-vingt pour cent du bâti scolaire okay. bien sûr construire des établissements yu bees parce que il faut ñu prévoir la croissance bi nga xam ne moom mooy am croissance démographique naturelle. Mhm. ak aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy jógee euh, feneen ñëw installé wu Bargny. Mhm. ça aussi c'est un chantier il y a l'hôpital il y a l'hôpital ça aussi c'est un vaste chantier. Mhm. sur le plan sanitaire ñun quatre structures de santé la ñu am poste de santé. poste de santé yi euh, bu Bargny Géej réhabilité nañ ko. bu Ndiolmane réhabilité nañu une partie. parce qu'il y a deux parties. il y a un bâtiment qui était abandonné. on l'a réhabilité maintenant ngi koy utiliser pour des soins. benn bâtiment bi nga xam ne moo des xaw a dégradé mooy euh, poste de santé Missirah mm-hmm. loolu APIX day accompagner les communes traversées par le terre mm-hmm. ñoom jël nañu ko en charge mm-hmm. ñu ngi ci les appels d'offres euh, ñu ngi euh, le chantier a démarré d'ailleurs pour construire une maternité bu bees tax moderne ak un centre d'état civil secondaire donc fi ñuy woowee ginnaaw raay c'est un projet boo xam ne ñu ngi gërëm la DGPU délégation générale pôle urbain ñoom ñoo ko jagleel Bargny c'est un financement de plus de cent millions okay. et bien évidemment am na benn centre de santé enfin boo xam ne daañu ko ubbi bu ci yàlla àndee samedi mhm. centre de santé boobu Abdoulaye Diouf Sarr donc le ministre moom moo signé euh, l'arrêté consacrant donc le centre de Ndiaye Diouf pour ñu ko xam en mhm. centre de santé mhm. c'est la première fois c'était une demande pressante des populations de Bargny donc daañu ko ubbi et foofu it li ñu fa décidé mooy le conseil décide na ko ba pare on divise les prix par deux ku doon dem di faju euh, gis médecin la journée da nga deux mille mhm. conseil bi nee na mille ngay fay mhm. ainsi de suite les prix en fait ont été divisés par deux trois médecins embauché nañ leen déjà mairie bi def na seen ay contrat mhm. li des nag mooy ñu dem vers un hôpital ça c'est le grand projet de ce mandat à venir après toutes les réalisations yi nga xam ne wax naa ko tout à l'heure sur le plan de la de la santé boo jëlee it d'autres domaines sur le plan économique wax naa quai de mhm. mais am na benn marché bu bees tax boo xam ne nii euh, pare na. Mhm. dinañ ko inaugurer ci mois de décembre bii nii. Mhm. sans compter euh, euh, benn programme bu ñu def jagleel ko les artisans mu tudd le PRODAP. programme de développement de l' artisanat. où artisans yëpp gis nañ seen bopp. ébénisterie entreprise de beauté les tailleurs d' ailleurs le cadre bi la ñuy joxe de subventions aux tailleurs. 120 ñu jënd leen ay machines machine bi buy jar 120 000. eh bien so cent ngay fay 50 pour cent bi mairie bi koy fay. ainsi on va poursuivre effectivement. Mhm. Euh, toutes ces réalisations yi nga xam ne moom la ñu def. Mhm. depuis ñu nekk fii. Mhm. avec donc les grands projets yi nga xam ne wax naa ko. dans le domaine de la santé avec les régions de l'hôpital dans le domaine économique le premier pôle de pêche de la région. dans le domaine de l'habitat la restructuration de Bargny Guedj une digue et la poursuite du projet PROVEC programme de relogement. et euh, bien entendu la poursuite donc de la modernisation des infrastructures sportives mm avec aussi de grands clubs la promotion de grands clubs donc au niveau euh, niveau de Bargny. ok donc ñu fàttali que ñu ngi ak Abou Seck muy maire Bargny euh, nekk tête de liste benn Bokk Yaakaar euh, à Bargny aussi wax monsieur le maire ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu ngi ci jeexantalu émission bi. ah jeex na déjà. Ah <laughs> <laughs> non en tout cas c'est vous remercier pour dire euh, j'invite et j'encourage ñu gën a jox la parole au maire. Mhm. y a beaucoup d'initiatives yoo xam ne ñu ngi koy def ci gox goxaan yi et dama koy faral di wax chaque fois euh, décentralisation bu amee dafa laaj yéen it léeg-léeg information nationale yi ngeen teg ko nële dem ci information locale yi également mhm. pour jàppale population ñu xam li xew ci seen ay gox mhm. loolu daf ci am solo mhm. décentralisation c'est un axe fort bi nga xam ne président teg na ko avec l'acte 3 eh il faut aussi la décentralisation de l'information te ci loolu ngeen nekk moo tax ma di leen jaajëfal di leen remercier ci invitation bi et puis di leen encourager bu baax pour poursuivre dans cette voie di nuyu nag spécialement particulièrement ma fierté qui est Bargny. Macha Allah elle est Bargny. Jërëjëf